kawteef am na ci bile couple diggante Mia ak Nofees xàmme ngeen leen ñoom ñi la di waa Maabo te ñuy woy sénégalais yépp bëgg leen jëkkër ji mooy sol verre yu ñuul te am ay faas ku jigéen ki moom mooy Mia bu ñu woyee daal mu neex ñépp ñoom ñaar sëy ba tas na tasar ku ne dem na bi yoon moom kawteef indi na ay leeral rawatina ci sëy bu njëkk bi nga xamante ne dañu waxoon ne dafa tas loolu lu am la kawteef nee na sax kii di Cheikh Alassane Sène di politicien bi moo leen daal di jiboole gannaaw ñoom bi ñu ko weddee ba ñu génn ci ay video ak ay photo di wane seen bopp ne sëy bi daal fi mu nekk ni lépp nice bi mooy ñetteelu tas boo xamante ni jamono jii am na seen diggante te kawteef daal di koy indi la sabab loolu mooy que ne juróom benn weer ngi ni moom Mia di soxna si demul seeti yaayam gisu ko rawatina tamit fitna gu metti lay dund ci biir sëyam diggante moom ak borom këram boobu di noo fees kon daal maabo fi mu nekk nii daa yëngu lool kon tuddeetul maabo jamono ji ñuy wax ne moom Mia gàddu na ay bagaasam ak microom dem xooli fa mu jëm ne fi mu nekk daal mënatul ndaxte ci fitna ay dóor ak i moom yorul sëy fi mu nekk nii daa sonn muñ na ko ci diir bu yàgg waaye fi mu nekk nii daal dem na ba nga xamante ni sëy bi bu laloo ci ay dóore ak saaga ak fiire dem na sax ba Mia amoon na contrat ak ay woykat yu nekk bitim réew noo fees di borom kër gi ne mukk du ci dal du dem rawatina tamit mu tere ko sol tubéy ak zipok o jumbax awt paccal lépp loo xam ne jigéen da koy sol rek pour muy wane taaram jëkkër ji def ko ko daal tere lànk kaara tëdd si tali bu naaj bu tàng bi ni mukk dootu ko solati Mia looloo tax fi mu nekk nii sonn na dem nag kon kawteef moo leen indil boobule xibaar ne fi mu nekk nii bi mooy ñetteel yoon bi sëy bi daal dinay tas tasar ñu wax leen rek beneen xibaar boo xam ni kawteef am na ko mu di kii nga xam moom mooy Mia nee na léegi dafay konne carrière solom maanaam micro ba mu jël gàddu na ko dem léegi day woyal boppam demal boppam te it contrat bi nga xamante ni amoon na ko ñu nekk bitim réew di ay africain fi mu nekk di war naa mën a nekk ndaxte fii rek nga jeex na waaye ki nga xam moom mooy noo fees moom dafa bokk ci communication politicien bi di Cheikh Alassane Sène ñuy laaj ba xam ñoom ñaar bu ñu tàggalikoo kii di No Face bu woyee dana neexam déet ndaxte miyaa kat bu àndeek moom groupement ba gi jolli yaa may féexal yaay sama ngelaw yaay sama àdduna bu ñu wéyee rek mu neex miyaa bu demee woyal boppam ñoo fees dem woyal boppam kan la ñuy déglu kawteef